salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi siyaar nañ la kaa leen ñu waxtaan tuuti ci demo suñu waaji Aziz Dabala ñun tamit ñu joxe suñu point de vue xam nga dañoo nekk ci réew mi nga xamante ne réew mu seetaane mooy Sénégal ñoo ngi nekk ci réew mi nga xamante ne dañoo ñeme sénégalais léegi dafa ñeme sénégalais dafa woo bët sénégalais léegi lu mu ragal a wax amut léegi ci réew moom lañ ne léegi nag boo nekkee ci réew mi nga xamante ne maanaam nit ki dinaa la rey nga jàppee ko foo maanaam dinaa la rey yu suñu bàyyi daan def kom comme ci foo dinaa la rey léegi Sénégal léegi loolu nekkatul foo ci biir réew mi dinaa la rey ki la naan dinaa la rey bu yóbboo nga dem porté ko plainte moo xam sa rakk la moo xam sa xarit la moo xam kii mun a doon ci réew mi bu la nit ne dinaa la rey dama porté ko plainte parce que réew mi toll na foo xamante nit ki day ñëw taxaw dinaa la rey nga jàpp ne foo la ndëkkate yoo moom dëgg la lay wax ci dëgg bi la nekk maanaam dinaa la rey li nga xamante ne ñun lañ ko daan foowe léegi nit ñi dañ ci foowe ba nekk ba ba ba ba ba ba kii ci dëgg nag ba def ci dëgg kii danaa la rey sénégalais ragalatul yàlla de sénégalais moo yàlla ni yàlla am na moom gëmu ko moo tax lii am Sénégal ngeen koy gis ni ci ay xuloo bu ñàkk fayda mu jam nit may ma paas may ma paas est égal Sénégal ma moom sa xaliss may ma mayu ma loy may demal sa yoon demal liggey ni man ni ma def ba am sama xaliss bi demal def ko waye may ma may ma nga japp nit ki ray ko gis ngeen senegal fu mu toll kenn ku nekk na nga fajar na nga na nga jël sa responsabilité bop senegal tollu na fo xamantene li ngay jappé nit ki mu ngi koy kas mom mu ngi ci deugam moo xam xarit ak bu la dinaa la rey demal porte ko plainte bu ko bàyyi ak moo xam sa sa rakk moo xam sa grand frère moo xam sa yaay porté ko plainte parce que Sénégal moo tollu foofu de ndey rey na doomam doom rey na baay parce que réew mi moo jaxasoo léegi Sénégal moo jaxasoo ba kenn xàmmeetul ban senegal lan ne réew mi moo tollu foofu moo tax jël leen seen responsabilité sa dafa for yàlla dafa bind bakkan ba pale respecté doomi aadama waaye ñun ñoo jàppee bakkan mana morso mbalit beneen bi mooy sénégalais yéen a bon yéen yéen a bon yéen yéen a soxor man boo leen ma ay jullit ngeen daf may jaaxal boo leen ma nee yenn ay jullit ñet daf may jaaxal man mun ma comprendre tey nit ki dee ñu war koo ñaanal ku ci mel ni Aziz Dabala nekkoon ci yéen ñeen ko daan invité ci ay soirée muy fecc ngeen di ànd ak moom fu ne ci jamono bu muy dund yéen sénégalais yi musoo leen taxaw ne Aziz Dabala góor jigéen la musoo leen taxaw fenn wax ko ngeen xaar ba nit ki gaañu ñeen taxaw ne moom góor jigéen la non sénégalais yéen ay naa fekk bu muy dund nangu ngeen ko nangol ngeen ko góor jigéen bu mu nekkee yéen ñi ko wax yen ñi taxaw naan Aziz Dabala góor jigéen la bu muy dund bu muy dund ko te yéen yéen a daan moom fu ne di dem soirée fu ne ngeen ànd ak moom bu muy dindu waxoo leen ko fen muy yëkkati alalam di leen ko jox boobu waxoo ni góor jigéen la de déedéet comme mu ngi leen di jox xaalis muy neex waxoo leen ni góor jigéen la mu ngi leen di mu ngi duufal seeni poos waxoo leen ni góor jigéen la loo leen soxla ci moom ngeen dem wax ko mu may leen waxoo leen ni góor jigéen la tey ngeen xaar ko ba mu dee mu soxla ñaan yeen ci sénégalais yi sénégalais yooyu mu daan ñaan yi ko daan ñaan xaalis tey sénégalais yooyu ñooy toog ñooy taxaw di naan di ko naan góor jigéen la nangam nangam la ñoo sénégalais bon sénégalais soxor sénégalais bon yéen yéen a bon yéen a soxor cela veut dire que ni yow yow miy taxaw naan Aziz Dabala góor jigéen la nga xam ko ci bu muy dund waxoo ko bu muy dund loolu mooy jikkoy naafet lii mooy jukkoy na bu muy dund waxoo ko de nga xaar ba nag mu dee nga war koo suturaal comme bu muy dund yow gis nga ko te waxoo ko kon waroo toog ba mu demee nga war a mun a toog wala taal sa live wala ngay dem fu ne di naan waa ji góor jigéen la te bu muy dund yow xamoon nga ni góor jigéen amaana fekku nga ko ay góor di ko tëddee boobu waxoo ko boobu waxo len ko de ngeen xaar ba mu dem ba yalla jele ko fi mu dese lu ngeen war ko ñaanal déedéet yeen sénégalais defo len ko ngeen taxaw lu bol lu ne ngeen jël ko tek ko ci doomi ci deru doomi adama te bu muy dundu waxo len ko lolu bu muy dundu yéen ngi doon and ak mom muy neex ñen koy ñaan mu yëkëti alalam di len ko jox boobu waxoo leen ko ni góor jigéen ga du ñu ànd ak yow boobu kenn taxawul ci benn tele naan Aziz Dabala góor jigéen la kenn ci yéen kenn ci yéen ñii di wax ni góor jigéen la moo tax man ragal naa sénégalais de man man nu ma ragalee sénégalais sa yéen xamoo leen ko man ni ma ragalee sénégalais yéen seen bopp xamoo leen ko moytuma sénégalais loolu dama leen koy wax saw yàgg naa ko wax na nee naa leen ma sénégalais amul lu mu ñemewul buggi bës jaral na ko lu ne bëgg ni ñi xàmmee ko ci réseaux sociaux bëgg am vie jaral na sénégalais lu ne léegi yéen bëgg ay vie bëgg bës tax na ngeen jël doomi aadama tam ko di ko yekkal loo xamante ne amaana nekkul ci moom li ngeen koy wax parce que man musuma koo gis musuma dégg bu muy dund ni Aziz Dabala mi góor jigéen la musuma koo dégg bu muy dund ngeen xaar ba nit ki yàlla jëlee ko fi ngeen war koo ñaanal yéen sénégalais yi mu daan may xaalis yéen sénégalais yi yi mu daan faj seen aajo yéen ay taxaw tey di ko naan góor jigéen la hypocrisie sénégalais wallaay bisse boo leen deewee di ngeen layoog moom de bis boo leen deewee wax li nit wax nit ci loo xamul wax nit ci loo xamante ne musu koo def sosal doomu aadama billaahi wallahi képp ku dee di nga layoog nit kooku noonu c'est parce que mu ngi fekk wala c'est parce que lëttu na mees wala c'est parce que mi yeneen koy gis muy léttu wala c'est parce que mu ngi gis yéen koy def muy def ay gir ay grimace góor taxul ñu naan ko góor jigéen defu ay geste jigéen taxul ñu naan la góor jigéen nga nga dox mel ni jigéen taxul nga nekk góor jigéen ngay léttu mees taxul nga nekk góor jigéen sénégalais bàyyil di wax nit ci loo leen xamul ci moom nit boo demee bay wax ci moom na lay leer na li ngay wax da xam ci moom dara Aziz dabalaa bi muy dund yenn sénégalais yi kenn musul taxaw fenn ci benn réseaux sociaux naan waa ji góor jigéen la musoo leen ko wax fenn fenn ngeen musul ko wax nit ñi musoo leen ko wax fenn ngeen xaar ba nit ki dem nga xamante ne waxtu yii seen ñaan la soxla yéen sénégalais yi ngeen toog kenn ku ne taf fam naan góor jigéen la nangam nangam mel ni yow mii koy wax danga koo mus fekk jigéen góor di ko tëddee subhanallah maanaam ñemeewu dëgërewu sénégalais fu mu tollu léegi moytu leen ma sénégalais moytu leen ma sénégalais amul lu mu capableul jamono jii may wax ak yéen lu sénégalais naan lii mënuma koo def lenn daal laa xam ne ñaar bokk laa xam ne sénégalais moom aduna du neex ba mu def ko mooy maa wa ma maa sàkk suuf maa sàkk asamaan loolu moom sénégalais bu ko wax day duut waaye leneen lu sénégalais wax rek jàppal ne moom ñeme naa wax lu lu ëpp loolu parce que seen gémmiñ yi moo takk moo takk sobe takk duul ñeme duul ñeme wax nit

c'est incroyable vous êtes des maires maintenant ci wàllu fen yéen ay pe sénégalais ak nigérien léegi benn ñoo bokk jiko yéen a bokk jiko yéen ak nigérien képp képp amul différence li nigérien daan def ñun ñu koy dégg léegi loolu moo xew lu wàll nañu maanaam fenn nigérien boobu la sénégalais léegi jël nigérien pour ngay gis nigérien buy wax dëgg te boobu génnee sarax la foofu la sénégalais tollul jamono ji nit kaa ngi gaañu bu muy gaañu musoo leen taxaw fenn naan ko góor jigéen la ngeen xaar ko ba nit ki dem ngeen taxaw kenn ku ne taf photo naan góor jigéen la nangam nangam la kërëb kërëb la dugg na fële ah, fecc bi naan dafa xaraam na bu muy dund waxoo ko lu tax bu muy dund yow jaakaarloo ak moom neen ko lii ngay def lu xaraam la loolu mooy jikkoy naa fekk bu muy dund yow musoo taxaw jàkkaarloo ak ak ak ak ak ak Aziz Dabala ne ko fecc mi ngay fecc lu xaraam la waaye nga xaar ba mu dem te bu muy dund ci xaalisam ci fecc bu mu daan fecc ñu koy fay ci xaalisam boobu lay jël di la ko jox ngay jël nga manqué dépense nga ñaan ko mu may la tey nga xaar ba mu dem nga ne da ngay yàq deram déedéet noo yàq deram yow yaa yàq sa der te xamoo ni yaa ngi yàq sa der mais munoo yàq deru Aziz Dabala noo ko amaana dee na dee bu ñaaw waaye na ci deewam bu ñaaw boobu noonu mu deewee ci la ko yàlla di di di ko suturaal fële ca àjjana ci Amana ci deewam bu ñaaw bi moom yàlla teral na ko tey fii mu tëdd yow nag yaa ngi toog war a defaral li la dese nga ne déedéet doo ko def faw nga dem jël ki nga xamante ne dom ne ba noppi taf ko di wax lu bon ci moom pour rek nit ñi seetaan la subhanallah ba pare nee nañu ay jullit lañu de nee nañu ay jur sawaay man dama gëm dara li ma ñemewuta wax doomi aadama bu muy dund lu ma ñemewuta wax doomi aadama bu muy dund duma xaar ba mu dee ma taxaw naan ko lii yow laa yow lii yow laa lépp loo leen dégg ma wax doomi aadama bu mu deewee jàpp leen ni wax naa ko bu muy dund lool man loolu laa gëm waaye duma xaar tey sama mbokk jullit mu faatu bi nga xamante ne bu muy dund musuma koo wax lu bon ma xaar ba mu faatu ma taxaw sama laaf ma ne damay wax ci moom lu bon wala damay wax ci moom lu ma xamul te waaye ragal lan yàlla ñun ñëppay dee tey Aziz Dabala mii fu mu tëdd ñun ñëpp fa lañu kenn du des ragal leen yàlla te xam ne yàlla dafa existé Aziz fu mu tëddi tey ku mu kan ñun ñëpp fa lañ jëm sawa waay yow nit ki bu muy julli yaa ngi koy séede lu baax naan moo baax moo rafet moo gën a baax ñëpp sede ko lu lu kenn xamul xaar ba mu dund nga ko yekk lu ne lu ne nga koy yekk tey Aziz dabalaa war naa mun a tëdd tey yéen sénégalais yi Aziz Dabala nekk góor jigéen seen réew bi ngeen ne ay réewu jullit ngeen musoo leen ko porter plainte musoo leen ko wax dara ci lu jëm ci loolu noonu ngeen xaar boo mu dee ngeen taxaw naan góor jigéen la nangam nangam la dugg na fële génn na fële yéen war ngeen ko wax yéen war ngeen ko wax yéen bu nekkee góor jigéen yéen ay yéen ay vrai góor jigéen nag yéen Aziz Dabala fu mu nekk góor jigéen rek yéen ay góor jigéen la yéen tamit ay góor jigéen ngeen fu Aziz Dabala nekkee góor jigéen yéen seen bopp ay góor jigéen ngeen parce que gis ngeen ko bu muy def comme li ngeen di wax comme yéen gis ngeen ko bu muy def bu muy dund waxoo leen ko fenn ngeen toog ne pat ngeen xaar ba mu dee ngeen bu koo jin góor jigéen yéen tamit moom ngeen nañu waxante dëgg moom ngeen man duma ànd ak nit mu nekk góor jigéen ma ne pat ma xaar ba mu dee ma ne waaw pourtant moom góor jigéen kon man góor jigéen la nu ma def ba xam ni góor jigéen la nan laa def ba xam ko nan laa def ba xam ko bu dee dama koo gis dama koo bet mu fay ma ne ma bu ma ko wax man góor jigéen laa lekk naa xaalisu góor jigéen bàyyi leen yëfu naa nit ki loo ñemeelu wax ko ci kanamam bu muy dund bul xaar ba mu dee nga koy wax li ngeen di def mooy jikkoy naa li ngeen di def jullit waru koo def comme yow yaa accepté accepté nga dund ak mom mu nek goor jigen nga dund ak mom muy jël alalam di la ko jox nga koy lek nga koy won muy neex kon bu dewe sutural ko bu ko yalla jëlee sutural ko mi nga mu muñ bu muy dund nga xamni goor jigen la kon war nga mu na muñ bu mu demee te fofu la muñ bi gëna neex sax sénégalais bàyyi leen jikkoy naafeq encore une fois bàyyi leen jikkoy naafeq wax leen ci nit li ngeen xam nit ki du dund ak yéen salaamaaleykum ba maaleykum salaam muy neex ci yéen fu ne ngeen ànd ak moom li ngeen soxla si moom mu faj seen aajo ngeen bàyyi ba nit ki dem ngeen eenal ko yenn een wala yenn yi man xaw ma soxor la man xaw ma lan la ngeen jàpp doomi aadama di ko jiiñ góor jigéen te bu muy dund musoo leen ko jiiñ góor jigéen bu muy dund ci yenn yenn ñii woote jullit kenn musul porté ko plainte naan ko góor jigéen la kenn musu ko wax kenn musul dem ci benn télé naan Aziz Dabala góor jigéen nga góor jigéen nga tey ngeen xaar ba mu génn àdduna ngeen bëgg taxaw naan Aziz Dabala góor jigéen yéen ay naafeq yéen ay iblis yéen ay doomi xaram wallaay senegal sénégalais du nit sénégalais du nit yow mi ñeme wax ko ci jamono bu mu bu bu mu génnee aduna kon yow moom yéen a bokk yem aha yow ak moom yéen a bokk yem képp lu mu daan def nga gis ko boobu waxoko ba muy dund nga xaar ba mu dee nga bugg nga bugg taxaw won sénégalais ni ki lii la kon yow loolu nga yow it loolu nga seede nit ci li ngeen xam seede nit ci li ngeen xam bàyyi leen bëgg am vie mu jaral la nga nit lu bon bëgg ay mille vies bëgg ay mille personnes seetaan la warta mun a tax ngay tafi doomi aadama di ko yekk loo xamante nekkul ci moom sa bis boo deewee di nga layoog moom sa waay bàmmeel xat na sa waay bàmmeel na li nga fa fekk kenn xamu ko fexeel def lu baax loo xam ne lii lu baax la nga nekk ci loolu ngeen baay bi sosal doomi adama ngeen baay bi wax lu amut ñun ñëpp fa lañ jëm de fii Aziz tey jii fa lañ jëm ñëpp fii suuf fii ci kaw suuf si kenn du fi des kenn du fi des sa vie nga am ak say ñu ngi lay seetaan anamu moom yoruloon tiktok anamu tey ana tiktok am dem na bàyyi fii tiktok bi kon fàttaleku leen loolu xam leen ni yéen bis dina ñëw ñu tàggee leen comme ni ñu ko tàggee lu ko fi jar comme yéen mun ngeen muñ bu muy dund ngeen xam ni góor jigéen la ngeen mun koo muñ astafur laa sa man ni ma koy waxee parce que moo ko ci lu bon musuma dégg fenn ci benn tele ñu ne góor jigéen la man de musuma koo dégg te information bu xam Sénégal am naa ko musuma dégg ci benn télé ci benn nit bu muy dund nit taxaw ne diw de góor jigéen la kon ngeen xaar ba tey mu dee ngeen war ko ñaanal defoo ko sénégalais yéen dee façon bu mu deewee sax yërëmoo leen ko ci loolu noonu façon buñ ko reyee sax war na mun a tax ngeen am ci yërmande ci moom ñaanal ko fu mu tëdd tey mais déedéet maanaam xaw wow xol bi ngeen am bon bu nekk ci yéen amoo leen ko gisoo leen ko ba tax na tey ngeen toog di yàkkal doomi aadama loo xamante ne a nekkul ci moom musoo leen ko gis mu def ko subhanallah man ragal naa Sénégal tiit naa ci senegal wallahi asi tiit naa ci senegal bu dee yéen tiitoo leen man tiit naa ci senegal man dama tiit ci Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans quatre-vingt-quinze pour cent de jullit d'accord waaw j'ai peur de vous man maa leen ragal maa ñemewut léegi sénégalais vous êtes capable de tout yal nañ ci yàlla musa yal nañu yàlla suturaal yal nañu yàlla suturaal ci ay nit yu bon yal nañu yàlla suturaal ci ay làmmiñ yu bon wallahi boo leen deewee di nga layoo ak Aziz Dabala bis boo leen deewee di ngeen layoo ak Aziz Dabala kooku moom bu yóbboo ngeen xam ko yow mi toog taal sa laay fa di koy naan góor jigéen la bis boo deewee di nga layoo ak moom nit booy wax waxal li nga fekkee nit booy wax waxal li nga gis nit booy wax waxal li nga teg ci sa bët jaay laa bi fii laa koy yemale man de tiit naa dama ragal sénégalais dama tiit ci sénégalais subhanallah allahu akbar nit ki bu muy dund waxoo leen ko loolu ngeen xaar ko ba mu dee ngeen di taxaw di ko sosal di ko wax lu bon fu ne ngeen jaarale ko yéen maanaam deewam nu mu deewee sax maanaam defu leen benn cas amoo leen ci problème ngeen mun a ñëwaat taxaw di ko wax lu bon ci façon bu mu teewee rek mu génnee àdduna rek war naa mun a tax yéen sénégalais yi ngeen am yërmande ci moom ñaanal ko tey mais defoo leen ko ngeen taxaw di ko jiin de góor jigéen di ko jiin lu ne ngeen wax ko tey ci ginnaawam te bu muy dund waxoo leen ko loolu la wax baru man ragal naa Sénégal de dama ci ci réew mii lé les gens sont capables à te ñi nga doon àndala ah? ñi nga daan àndal ñi daan taxaw sa ginnaaw di la tàccu naan yaa fi mën yaa def lii yaa yaa baax yaa nanga ñoom ñooy xaar ba nga dee ñu taxaw naan la moo bon góor jigéen la nangam nangam iblis la seytaane la ñoom ñii la bu yeboo kenn ku ne ci moytu ma xarit yéen ñi bëgg xarit yéen ñi bëgg indee sama doomu ndey nga man awma benn doomu ndey ci réew mi aw ma xarit la day leer ragal leen sénégalais boobu mooy sama dernier ragal leen sénégalais wasalaam